juróom ñett fukk ak benn reer bu mujj bi asalaamaaleykum mbokki déglukat yi ñu ngi leen di nuyu ci turu yàlla boroom jàmm ji bëgg ñépp dégg te nangu yoon njub mu tëral ngir am jàmm ju wér ak moom ba faaw. am na nu mbégte lool ci li nu mën a dellu si tey ngir dégtal leen seen émission yoonu njub ni ko ñu ëpp ci yéen xame fi nu toll ci sunu tukki ci mbind mu sell mi mu ngi gëstu ci linjiil di téere bu sell bi nettali xibaar bu baax ci mbirum yéesu mi ramukat bu sell bi gane ci àddina ngir goreel doomi aadama ci kilifteefu seytaane yeesu wuute woon na lool ak yeneen nit ñépp ndaxte mooy kàddu gu nekkoon ak yàlla ca njalbeen ga te feeñu ci kaw suuf ci bindu nit gisoon nanu ne almasi bi yeesu kenn rekk la ci juddoom ndaxte ci janq la juddoo ci kàttanu xelum yàlla naka noonu itam yeesu kenn rekk la ci jikkoom ndaxte jikko ju sell la judduwaale te mësula def bàkkaar ci lu jëm ci jëfam nag kenn mësula def kemaan yu mel ni yi mu def yeesoo ëpp doole seytaane ak rabam yépp ngelaw li ak géej gi feebar ak dee te ci lu jëm ci njàngaleem ay noonam sax waxoon nañu ne kenn mësula waxe ni nit kooku waaw yéesu Christ kenn rekk la woon ci juddoom ci jikkoom ci jëfam ci njàngalem waaye loolu taxul woon ñépp ràññee ne yéesu mooy musalkat bi jóge asamaan lu ëpp ci doomi aadama xamuñu woon ku mu doonoon dëgg-dëgg dañu ko boole woon rekk ci yonent yi waaye ràññewuñu ne mooy yàlla mi leen ganesi ci boppam ci lu jëm ci kilifay diine yawut yi ñoom yemuñu woon ci bañ a xam ku mu doon waaye dañu mànko woon sax ci reylu ko naka noonu ci njàng mi weesu déggoon nanu ni yéesu gëdde woon xutbakat ya ak sëriñ sa ndax seenug naafeq ak seen coxor waaye wax yéesu yooyu taxul ñu réccu kilifay diine ya benn xalaat dong lañu amoon muy faw ñu reylu yeesu yéesu xamoon na xel ne dina dee ca yerusalem te boroom diine yooyu ñoo koy reylu naka noonu gisoon nanu ne yeesu xamal na ay taalibeem ni ko sëriñ su mag sa ak xutbakat ya nara tege dee jébbal ko waa rom ngir ñu ñaawal ko di tëfli ci kawam dóor ko ay yar daaj ko ci bant waaye gannaaw ñetti fan dina dekki noonu la yeesu xamle woon deewam ca bant ba ak ndekkiteem ca baameel ba wante almasi bi yeesu yemul woon rekk ci yëgle nan la naroon a deewe ak fan la waroon a deewe waaye ci saar wi nekk ci sunu kanam tey dinañ ci gis ni mu yëgle woon sax kañ la waroon a dee léegi nag nanu jëm kanam ci linjilu màcca saar ñaar fukk ak juróom ngir déglu ni yéesu waajale woon deewam ca bant ba mbind mi nee bi nga xamee ne yéesu wax na loolu lépp ba noppi mu ne taalibeem ya xam ngeen ne ñaari fana des ci màggalu bésu tegg ba te dina dinañu wor doomu nit ki daaj ko ci bant ndax dégg ngeen li yeesu wax ay taalibeem dafa leen xamal ne doomi aadama yi dinañu ko daaj ci bant ci bésu màggalu teggi ba loolu lu am maana lool la ci sunu gëstu ci tawret jàngoon nanu ci mbirum bésu tegg ba bésu tegg ba ci tubaab moom lañuy woowe paat daana xew ca weeru yawut wu jëkk dëppook weeru tubaab bi ñuy wax awril at mu nekk ci xew moomu yawut yi daan nañu fàttaliku la xewoon ca jamonoy muusa ba xeetu israel nekkee ci njaamu buur bu soxor bu tuddoon na ca jamono jooju yàlla reyoon na bépp taaw bu góor ci këri waa misra yi ngir na bàyyi xeetu israel ñu dellu ci seen réew waaye yàlla joxoon na bànni israel ndigal ne njaboot gu nekk waroon na ren menn mbote mu sikkul taqal deret ja ca seen bunti kër yàlla dafa leen digoon ne su ma gisee deret ji dinaa leen teggi noonu mbote ma dee woon na ci palaasu taaw ba yàlla jotoon na leen ak deretu mbote ma noonu diirub junni at ak juróomi téeméer yawut ya doon nañu rendi ay mbote at mu nekk ca màggalu bésu tegg ba ngir fàttaliku ni leen yàlla musale ci musiba dee mi wàccoon ci réewu misra wante yàlla bëggul ñu yem ci gestu fàttaliku li xewoon rekk jaare ko ci saraxi mbote yooyu yàlla dafa bëggoon ñuy xool kanam séentu bés bi almasi bi nara ñëw tuur deretam ci bant ba ngir musal bàkkaarkat yi ci musiba mu raw bépp musiba di safara su dul fay mukk deewuk rambukat bi ci bant dafa waroon a nekk sarax su mujj si di sarax su mat sëkk ci yoonu yàlla wu jub wi laajoon te yàlla ci xam-xamam dogaloon na ne ramukat bi dina tuur deretam ci bésu màggalu tegg ba ba amal misaalu saraxu mbote ma di àggale pexe mi yàlla rabatoon ngir musal bàkkaarkat yi ci atem bu jub bi léegi nag nanu dellu si ci linjil mën nanu tàmbaliwaat ak aaya bu jëkk bi bi nga xamee ne yéesu wax na loolu lépp ba noppi mu ne taalibe ya xam ngeen ne ñaari fana des ci màggalu bésu teggi ba te dinañu wor doomu nit ki daaj ko ci bant booba nag sëriñ su mag sa ak njiiti xeet wa dajaloo ca kër gu rëy gu sëriñ bu mag bu tudd kayif ñu daldi gise ba xam lu ñu mën a fexe ba jàpp yéesu rey la ko waaye ñu ne bu mu doon ci bésu màggal bi ngir yëngu-yëngu bañ a am ci biir nit ñi ca waxtu woowu kenn ci fukki taalibe yi ak ñaar ku tudd yuda iskariyo dem ca sëriñ su mag sa ne leen lu ngeen ma mën a jox ngir ma jébbal leen yéesu noonu sëriñ sa daldi ko waññal fanweeri poseti li dale ca saa sa nag yuda di fexe de jamono ju mu leen mën a jébbal yéesu noonu bés bu jëkk ca màggal ga taalibe yi yeesu laaj ko foo bëgg nu defaral la fa reeru tegg bi bés bu jëkk booba nag mooy bés ba ñu daan faral di rendi xarum màggalu teg ba noonu yéesu yebal ñaar ci taalibe yi ne leen demleen ca dëkk ba foofa góor gu yenu njaq lu def ndox dina taseeg yéen ngeen topp ko kër gi mu dugg nag ngeen ne boroom kër ga kilifa gi nee na ana néegu gan bi may lekk reeru teg bi man ak samay taalibe dina leen won néeg bu féete kaw te yaa ñu defar ko ba lépp jekk foofa ngeen nuy defarale reer bi bi mu ko waxee taalibe yee dem ca dëkk ba gis lépp ni leen ko yéesu waxe woon noonu ñu defar reer bi bi waxtu wi jotee yéesu toog ak ndaw yi ne leen yàkkamti woon naa lool lekk ak yenn reeru teggi bii laata ñu may sonal ndaxte maa ngi leen koy wax dootuma ko lekk mukk lu dul ba kero mu mat ci nguuru yàlla bi ñuy lekk nag yéesu ne leen ci dëgg maa ngi leen koy wax kenn ci yéen ku bokk ak man di lekk sax dina ma wor taalibe yi nag daldi am naqar ñu daldi ko ne kenn kenn mbaa man mu tontu leen kenn ci yéen fukk ak ñaar la kuy cappandoo ak man ci ndab li doomu nit ki mu ngiy dem ni ñu ko waxe ci mbind mi waaye ki koy wor dina torox bañoon na judd moo gën ci moom sax yuda mi ko nara wor laaj ko mbaa du man kilifa gi yeesu ne ko wax nga ko yuda nag jël dogo mburu ma daldi génn ca saasa booba guddi woon na noonu bi ñuy lekk yeesu jël mburu sant yàlla damm ko jox leen ko naan jël leen lii sama yaram wi ma joxe la ngir yéen def leen lii ngir fàttaliku ma gannaaw loolu mu jël kaas sant yàlla jox leen ko ñépp naan ci mu ne leen lii sama deret la ji faskolere gi te mu tuuru ngir ñu bare loolu lañu bind ci liñ linjil mu jëm ci reer bu mujj bi yéesu lekkandoo ak i taalibeem laata muy tuur deretam ni sarax suy dindi bàkkaar dégg nanu ni yeesu xamale woon fukki taalibe ak ñaar ne kenn ci ñoom dina ko wor moo di yuda iskariyo ci bëti nit ñi yuda taalibe yeesu bu takku la woon waaye ci biir xolam yuda xaalis ak mbiri àddina la fonkoon looloo taxoon yuda dem ca sëriñ su mag sa ne leen lu ngeen may jox ngir ma jébbal leen yeesu noonu sëriñ sa daldi ko wañal fanweeri posati xaalis te li nu war a fàttaliku mooy loolu lépp xewoon na ngir amal li yonent yàlla sakariya yëgle woon bu yàgg bi mu bindee ne des na wor almasi bi ci fanweeri poseti xaalis waaye li gën a am solo ci loolu lépp li nuy soog a jàng mooy li yéesu wax bi mu seddoo ak i taalibe mburu mi ak kaas bi ndax dégg ngeen li mu leen waxoon nanu ko jàngaat mbind mi dafa ne noonu bi ñuy lekk yéesu jël mburu sant yàlla damm ko jox leen naan jël leen lii sama yaram bi ma joxe la ngir yéen def leen lii ngir fàttaliku ma gannaaw loolu mu jël kaas sant yàlla jox leen ko ñépp naan ci mu ne leen lii sama deret la ji fas kóllëre gi te mu tuuru ngir ñu bare noonu gis nanu ni yéesu defe woon ñaari misaal ci kanamu taalibe ya misaalu mburu mi ak misaalu kaas bi mburu mi yeesu damoon te jox ko ay taalibeem dafay misaal yaramam wi muy joxe ji ngir doomi aadama mën a dund ci jataayu yàlla ba faw ci lu jëm ci kaas bi nag war ngeen xam ne ndoxum reseñ moo ci nekkoon te loolu dafay misaal deret ji yeesu almasi bi naroon a tuur ngir fayal doomi aadama yi seen boru bàkkaar noonu jaare ko ci misaalu mburu mi ak misaalu kaas bi yéesu doon na jàngal ay taalibeem ne joxe yaramam te tuur deretam a taxoon mu gane ci àddina kuy dund ci kaw suuf ku nekk war nga lekk ñam te naan ndox naka noonu itam ku bëgg a dund faaw ci jataayu yàlla fokk nga gëm ne yéesu kirist mooy ñam wi joxe dund gudul jeex gi te deret ji mu tuur mooy pexe mi yàlla indi woon ngir jot la ci alkande ji bàkkaar indi ah mbokki déglukat yi sunu fàtte lépp nag li nu jàng tey ba mu des lenn na nekk lii yéesu kirist ganesi na àddina ngir gàddu la sa yenu bàkkaar loolu mooy xibaaru yonent yàlla yi ci tënk yàlla mën na la baal say bàkkaar jaarale ko ci deretu ramukat bu sell ji la tuurul diirub junni at yàlla doon na laaj saraxi mala ngir jéggal doomi aadama yi seeni bàkkaar loolu mooy kóllëre gu jëkk gi yàlla dénk ay yonentam waaye yéesu almasi bi mooy ki indi woon kóllëre gu bees gi ndaxte mooy ki mataloon misaalu saraxi mala yépp bi mu tuuree deretam ca bant ba yeesu kirist ci boppam mooy mbote mu mujj mi ñu reyoon ca bésu tegg ba ngir képp ku ko gëm mucc ci àtteb yàlla bu jub bi loolu moo tax mbind mu sell mi ne yeesu kirist deewal nanu ca bant ba mel ni mbote mu ñu rendi jébbal ko yàlla ca màggalu bésu teggi ba kirist mi musula def bàkkaar yàlla def na ko bàkkaar ci sunu wàll ngir ci sunu bokk ci moom nu mën a doon njub teg yàlla deretu yeesu mbotem yàlla dinanu sellal ci bépp bàkkaar xam ngeen ne yàlla jot na leen ci seen dund gu tekkiwul dara gi maam ya nekkoon te jotu leen ak yu deme ni xaalis mbaa wurus yuy wey waaye ci deret cu kirist tedd ji mel ni mboote mu sikkul te wàññeekuwul yàlla xamoon na ko ba àddina sosogul waaye léegi ci mujjug jamono feeñal na ko ndax yéen ñi jaar ci moom gëm yàlla te yàlla dekkal na ko sol ko ndam ngir ngeen wékk seen ngëm ak seen yaakaar ci yàlla amin ngeen xalaat bu baax ci li ngeen dégg tey nag mbokki déglukat yi ndax yàlla dafa bëgg leeral seen xel ci dëgg yu rëy yooyu ci njàng mi ñëw nag bu soobee yàlla dinanu àggale nettali bi jëm ci reer bu mujj bi te gis ni sëriñ su mag sa jàppe woon yeesu ngir rey ko su fekkee ne bëgg ngeen am téere bu yaatal seen xam-xam ci mbind mu sell mi ngeen bind nu ci yoonu njub boîte postale 370 Saint-Louis yoonu njub BP 370 Saint-Louis yàlla na leen yàlla barkeel te ngeen xalaat bu baax ci li ñu bind ci kàddug yàlla ne deretu yeesu mbotem yàlla dina nu sellal ci bépp bàkkaar